bokk mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu danañu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaan rahim mbokki internet yu seen site de production di Tawfekh Production ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax a baax tey jégalu gëj gee eh, ñëwaat ci ay point ñuy wax eh, actualité de la eh, semaine tey ji la nag ñu am mbégte dellusiwaat ci di ziare bu baax a baax sunu sang yu tedd yi nga xamante ñu ngi ci réew bu Sénégal bu ñu leen waxee nag suñu xel day dem ci Serigne Mountakha Mbacké Bassir ana yàlla suñu borom kàttanal ko may ko wér ak euh, mbooleem ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi Serigne euh, Modou Mbenn am di Mbenn Fall ana yàlla suñu borom kàttanal ko waaye di ziare bu baax euh, ca fële ca na ñaseen Cheikh Ahmed Tidiane ñas ñu ngi koy ziar di ziare Cheikh Mahi Niass di ko teg ci loxob Cheikh Mahi Cissé mu jot li ko njaboot gi yëpp ca Medina Baye eh, di dem ca eh, ëttub maam eh, rek fële ca Canaba ziare sëñ Assane Seck yàlla yàlla suñu borom kàttanal ko. jóge fa weññeeku jaar euh, euh, Ndiassane ziare Cheikh Cheikh Bekay Bekay Kunta yan yàlla su mboom euh, yàggal ko fi kàttanal ko may ko wér waaye tamit bu ñu weññeekoo dugg biir Tivaouane ziare Cheikh Serigne Babacar Sy Mansour yan yàlla su mboom may ko wér kàttanal ko ak njaboot gi yëpp bu ñu fa weññeekoo ba ñëwaat Dakar nag dañuy ziare bu baax a baax ki nga xam moom moo di Cheikh Mouhamadou Makhtar Laye yan yàlla su mboom ko ci njabootu maam li moom lay al Mahdi gi waaye ziare njabootu Omarien gi ziare Cheikh Ahmed Ba ci diwaanu Medina Gounass ziar nañ ñëpp ñëpp euh, yal na yàlla suñu borom def si réew mi jàmm waa jàngo bi euh, monseigneur Théodore André Sarr yal na yàlla suñu borom may ko wér moom it ci liggéey bi muy liggéey ci jàngo bi Sénégal yal na fi jàmm yàgg. mbokk yi niñ ko baaxoo di defee waxtu wu nekk rek ñëw ci ponk yoo xamante day soxal actualité d'ASM waaye moo tax ma ne euh, ngir ngeen gën a mën a am sunu ay information en temps réel en exclusivité abonné leen ngeen bës cloche bi mën a bokk ci ñuy recevoir information yi saa su ci nekk rek moo xam ci biir réew ci biti réew ci diaspora bi ak fépp daañ leen koy baaxee dara du leen ci rëcc lenn ci actualité bokk na ci li xewoo ci fan yi ñu gis ko fan yi ñu gën bokk na ci wàllum docteur Fala Fala Paye mi nga xamante ni gis nañ jëye ji am euh, mu faatu faat boppam euh, mu faat boppam faataale ay tout tànkam ñett ñetti tout tànkam ci jafe-jafe boo xamante ni mi ngi ko doon dund ak soxnaam suñu wax Ndeye Awa Diagne mu nekk loo xamante ni tiis la bu ñëpp di méttalu ndax képp koo xamante ni. yaa ngi ci néegu sëy metti na la lool képp koo xamante ni borom kër nga touché na la képp koo xam ne am nga njaboot touché na la euh, ñuy massawu bu baax a baax njaboot googu googule mu bokk fekk fa baax mais jàngat bi ñu ci mun a jàngate mooy que euh, war nañoo defaat lu ñuy wax rétrospective jàngataat suñu societé bii di Sénégal ci ñun ban société ban askan lañ bëgg a bokk ndax bu fekkente ji dañu gis ay jikko yoo xamante ni euh, euh, baaxoowuñ ko di ko gis ci suñu penc mi laaj dafay samp ci euh, ban société la ñu war a am ban penc la ñu war a am ndax je pense que ne lu mel nii dafa interpellé ñu bëree bëri ndax euh, jàpp nañ ne xëy na moom moomee di dem si yàlla si am na lu metti woon ci xolam ci biir néegu sëy mu daan ko dund mu nekk loo xam ne daf ko yàgg dajale muy loo xam ne dem na ba mu mënutu ko dékku euh, mu fees dell ba rembat mu tuuru noonu ci jéye ji mujjee am euh, mu mel ne day interpellé si sunu vie conjugale li tubaab naan vie conjugale sunu néegu sëy ci wolof naka lañ ko war a tëggaatee moole ko ba mën a ko boole ak ñi nga xam te suñu ay kilifa nee naa Sénégal dañu am ay ay référence mais préférence bi dafay ëpp doole dañu bàyyi lu bëri loo xamante ni kilifa yi dañ ko daan def ci baaxantal ci biir néegu sëy ndax sëy du benn fan du ñaari fan du yàgg la kon lépp loo xamante ni ko ci def rek dafa war a am li ñuy wax fondement bu baax tabax ba dafa war a dëgër yaakaar naa tey jilee bokk na ci mag ñi ci sëy bu njëkk bi nga xamante ni dañuy nekk ci kër gi dama koy faral di wax ne leen mag ñi dañ daan yor ñeenti jabar yor ay ñaar fukki doom ci kër fanweeri doom waaye kenn kenn du yëngatu ñëpp naan cocc ndax responsabilité bi ñu àndaloon ndax tamit sëy gi li ko nasoon di lii di fondement bi maanaam mu nekkoon loo xamante ni euh, val valeur morale yi mu doon ak yi ko doon accompagner ak jikko yu baax yi ak tamit li la ci yóbbu kon nañu xolaat suñu néegu sëy bu fekkente tey jii nag da ngay sëy nga beroog sa jabar ngeen nekk souvent aussi euh, inter euh, intervention bi ci war a am dafay manqué te ku ne xam ne mag ñi bu njëkk boo nekkee ci biir kër di sëy da ngay jomb yenn yi wala boo ko naree def sax da ngay gis ku la gàgganti ku la joyanti ku la corriger loolu nag bu fekkee ne yéen ñaar rek yéen dëkk te amu leen ku leen ko defar yaakaar naa ne problème yi day posé wu mais liñ ci mën a wax rek mooy tey jilee na moom faa pay bëggoon na bëggutoon bëgg bëggul ndaw si muy souffrir ni ba tax mu def li muy def waaye yaakaar naa ne xale yi souvent nag problème sëy yu bëri xale yi ñooy nit ñuy dund Euh, conséquences yi les pots qu'ils n'ont jamais cachés yaakaar naa ne jot na ñu xoolaat jigéen ñi buy sëy bul sëy ngir ngir ngir taar ndax bu dee taar di nga màgget bul sëy ngir alal ndax alal di nga jékki-jékki muy wàññeeku bul sëy ngir matériel ndax matériel mën naa jékki-jékki nga ñàkk ko sëyal tey yàlla sunu borom tax néegu sëy boo ci duggee doom boo ci am dafa war a nekk bànneex mais fekkee da ngay sëy ngir intérêt souvent mooy jur conséquences yu gis te dafa bëri si société bi léegi man dama jàpp dama koy wax ma naan daanaka jigéen ñi euh, euh, boo xool sax daanaka dañuy seeti wala dañuy dañuy yër si mais seey si amatul bu njëkk da nga daan sëy si seeyaale fa sëy si seey waaye léegi bu dee da ngay seeti sëy sëy contrat ngay def CDD CDD sax bëreetul léegi stage ngay def un mois ngay def gis dara neexul la nga diriwaat sa valise dem sëyatuñ ngir contrat CDI sëy boo xamante ni abadan la yéen ñaar ku nekk day jëm euh, dogalante ne ma boo ma suulut bu ma la suulut nga suul ma c'est-à-dire da ngay dem ngir seey fa ba jeex fa tàkk waaye léegi sëy yi ma gis jamono ci génération bii nii musiba la te moo produit société bi ñu am xale yoo xam ne dañuy juddu amuñ comportement yarawuñ weguñ kenn respecté wuñ kenn loolu lépp mooy produit wu li nga xam te moo am ci néegu sëy yi nga xam te mi ngi am kon mu jot ñu xoolaat bu baax a baax anam bi ñu sëy euh, donte kii dem dem na mënuñu def procès ci la personne qui est décédée mais lu ci mën a am mooy jot na ku góor ñi di xoolaat aussi ni ñuy duggee ci jigéen ñi nañ leen wax dëgg gi nekk ci ñoom jigéen ñi tamit nañuy wane li nekk ci ñoom te bàyyi puukare bi ak matérialisme bi ñuy dund bokk na ci conséquences yi nga gis nii te yaakaar naa ne moom li ko dal xëy na dal na ko waaye am na ñu bëri ñu mu dal ñoo xamante ni buñ ko doon lim ci senegal du jeex xëy na moom bu gisoon yooyu sax amaana du xaru ji ndax am na ñu ko gën a mettale fuuf lu ñuy dund ci seen biir néegu sëy ak seen i yaakaar na tey jot na buñ demee ba li ci biir kër yi li ci biir néeg yi di dem ci mbedd mi dem ba ci biti yaakaar naa ne jot nañu xoolaat ban pénc ban ëllëgu askan lañ nar am pour na mën a jëm ca kanam wal qalami wa ma yasturuun bokk mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon a déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu danañu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun